gaay yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar yéen ñi ci Forma Sport ñu war a ci benn vidéo wax ci Diao Keita Baldé bi nga xam ne depuis 2017 ba léegi Sénégal duñ ko fàtte a yi yaakaar naa euh, a joxe conseil day joxe xalaatam du wax xale yi bu baax a baax kon nag Diao Baldé retouram yaakaar naa war na mën a am gannaaw bi mu demee fële nga xam ne mooy mooy euh, ca Rogy am fa club di titulaire di def ay match yu baax war na may ñëw ci équipe nationale bu Sénégal mais laataa ñu ngi rëb xóoci loolu dañoo yéen ngeen abonné te ngay bës ko notification fii ci Rmo kon Diao Baldé mi ngi noonu comme ni nga gisee ni ko mooy bi jàpp macha allah mu takk numéro 9 bi xam nga nekk ci forme bu jég de woo athlète dëgg la dafa entraîné ba yaay toj yor forme bu wànq bi na franchement tey fàttali Diao Baldé bu euh, Diao Keita Baldé bu 2017 jàpp naa ne un contre un war na ko mën a dindi yi war na mën def ay passe war na mën di contact def yëpp ndax forum bi moom euh, lu mu ci bëgg a na ko mën a def en tant que bi ak objectif bi léegi nag ANG ni mu bëggee nga xamee ak Diao Baldé fan yi ni mu wane boom MSN commande dugal bii club mu commencé am confiance di ko dugal ce que yaakaar ne ANG du convoqué Diao Baldé bokk ci ñuy ko xam-xam dafa bëgg Diao Baldé te tamit loolu ma fi am ndax Diao Baldé nekkul cadre ci bi cadre la boo xamante ne bii nag lenn rek moo ko te titulaire bu woon dafa ne am club boo day titulaire di fool toujours comme ni Ismaïla Sarr di footballé kon sax Ismaïla Sarr poste bi ko moom Diao moo ko moomam ndax moom la ñëpp gën a wóolu ndax moom la ñëpp gën a xam ndax football moo moo ëppoon pression football moo gën a baax un contre un lay dindi facilement loolu bëgg na ko yaa ci Diaw kon nag ñoom yaakaar Diaw boobu bu ñu ko wooyee war na mën indi forme bi mu yoroon wala bu amul am bu ko jage ndax gëm-gëm bi mu ngi ci moom ak fula ji ak fayda ji te franchement foofu mu nekk ma ngi fi mën a moom mu baax a baax kon gars yi lu ma nekk vidéo bi ñuy gan ci bi wooy la ngeen abonné ngeen di commentaire ngeen di partagé ngeen di liké ngeen ñuy xaar bi suñu seen Thiel Sport ak yeneen vidéo ak yeneen jàngat du ñu bàyyi dara du ñu bàyyi dara merci beaucoup sama gars am ngeen jàng